maqaam saaniya wal isruun lim te jàngale mooy xeeti kitaaba te mooy lu mel ni xisaab ak insaaf bu gën dëgg-dëgg seen ngëneen lay leeral dégg mu ne mu ngi ko askan ci furaat mu ne hakka nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam qaal mu ne awaytu tappu woon naa fii baadil fatarati ci lenni fatarat yi mooy waxtu yi nga xam ne waxtu yi noppalu la xam ne du jamonoy liggéey dama ci tappu woon ila siqyil furaati jëm ci tool ñu nandali ndox ndoxam ndoxam furaat dem ci tool yooyu nga xam ne ñu ngi ci nahrul furaat ila taqil furaati jëm ci tool yu ñu nandali furaat hmm. yondale ci kooba hmm. dama tolloon ci ay fataraat mooy fani vacances fani noppalu hmm. xam ne du fani liggéey ma génn dem ci tool yooyu nekk ci pegg nahrul furaat muy tool yu ñuy roose fa laqiitu ma dajee bihaa ci tool yooyu kuttaaban ay bindkat yu mag ma daje faak bindkat yu mag abraa ñu gën a kowe min banil furaat ci banul furaat ñu doon ñoo xam ne ñu gën a doon sang banul furaat ay sang la ñoon ñeenti mbokk la ñoon ñu ràññeeku ci doon sang waasa ba te gën a neex alaxan ci jikko minal maayi ci ndox al furaati mu daa ji neex ay nit lañ ñu neex a àndal itam ci gannaaw bu ñu amee balaaxa bu baax a baax rafetal kitaaba bu baax a baax itam dañoo am jikko yu tax ñu neex faatartu ma wër bihim ci ñoom mm-hmm. may jaxasoo ak ñoom bindkat yooyu mm-hmm. ma fekk ci nahrul furaat ci mm-hmm. fiqiyul furaat li tahaddu bihim ngir seen seen sell ga fekk seen nite ga laa leen bëggee su may jaxasoo ak ñoom man ca jëriñu laa li dahabihim waaye dut seen wurus waa taxate dut kooma gaa dina gaje seen loxo moo ma jaral may leen si booru wa ma bëri lanteeg ñoom may ànd ak ñoom bokk ci ñoom mm. fu ñu jogee ma jog fu ñu toogee ma toog li mm. adabihim ngir seen adab ni mm. ndeg gane ci ñoom ak xam laa di ma aatihim waaye du seen ndabi njëkk ya waaye du lekk yu neex yooyu ñu taj moo tax fa jalastu ma toogaaleet ma jikki haaleet ci ñoom adraba xaaxaahin kemi xaaxaa ibni sawrin kay doomi sawru ma toog ak nit ñu neex a toogal mm. ñoo xam ne koo ci rek mm. da nga yaakaar ne xan-xan ibnu sawrin la mm. kenn la ci sangi arab yi madrabul masali la ci rafet nu mooy dëkkee ak nit ci la arab wax ne wa kuntu jalisa xan-xan ibnu sawrin dama toogaale ak xan-xan ibnu sawrin wala yasqa bi xan-xan jalisu kenn du toogaaleeg moom mm. dajale ci toogaaleeg moom texe hadi mm. dafa ku sinni mm. in nataqoo bi xayrin soo waxee lu baax dana la may haajo reexal la nga firee ku torop wayen da wayen da sorri soo waxee lu bon du la jànni dala toroxal waaye du la nekk na dala xabtal nga dem maamu bay dafa dem mekk rek soo waxee loo baax daal dana wane nu mu kontaanee ci sa wax mm. soo waxee lu dul noonu yéen nag mu mm. am mandu jàpp boppam rek mm. noonu la mel dégg nga ñun ñëpp noonu la wasartu ma jotee biin ci ñoom kawri ci yokku bandal xawri ci gannaaw wàññeeku xam naa ne ànd ak ñoom daal am na lu mu def ci man ah loo xam ne lu ñu war a sant yàlla la su ma digganteeg ñoom itam gën a am nañ hatta innahum ba ñoom asrakuni bokkale nañ ma fil martaay ci sàmmuwaay wal marbain ak wàccuwaay ba mujj rek dañ ma jàppee may kenn ci ñoom ci mbiri kër gi ak ci mbiri génn yëpp jàppee nañ ma may kenn ci ñoom waaxal loo ni ñi wàcce ma mahallal un mulati wàccuwaayu pol xoolu baaraam neen isbaan ci baaraam mm-hmm. xam nga bu dikkulee baaraam bi manqué na mm-hmm. lépp loo xam ne soxla nañ dajee waxtaanee ko mm-hmm. su ma dikkagut dajee guñ la ñoo gis ndax jàpp ne man kenn la ci ñoom wattaxadooni ñu jàpp ma ibna unsihim may doomi seen wéttal xendal wilayati fafal walaas li ak folli lu ñuy nas itam dañu ma ci jox cër dégg ci sama kaddu lu ñu nocc itam dañ jox cër déglu ci sama kàddu mm. bu waxee ñu dégg mm. waxaasina sirrihim te daa ji denc seen mbóor mm. fil jiddi ci dagg wala le ak mbóoran seen lépp daal wan nañu ma ko ndax ñu sell lu ñuy xaritoole fattafaqa dal di dajjal an nudi boo bu hooyee fatleen fii baadil awqaati ci lenn waxtu yi listiqra'i mazarin surdaqaati ngir topp bay wayu surdaqaati mm-hmm. ay tool lay do yu nekk ci pegg dëkk bu mag bi mm-hmm. te nag bokkul ci dëkk bu mag bi xame wut xatteem mm-hmm. place bu demee noonu dañ ko wax rusta rusta dañ wax itam surda ak tur yi ñu koy wax rek boo demee ci sëriñ yi dana def leeral dama ko teewlu wut léegi dégg nga ñu ne dañuy dem ci tool yi nga xam ne xëy na ci tooli dex gi la mm-hmm. waaye bokkul ci dëkk bi mm-hmm. il faut rek buñ te bëgg a mm-hmm. dañuy war gal jàll door a dem waxtaaru ñi dal di tànn mine jawaari ci gaal yi al musaat yëri yuñ yëkkati jaariyatan gaal xaalikata siyaa bu daaji ñuul ci melo tax sa bu haa danga ko jottu jaamidatan mu daaji wahiya te moom gaal gi te murru mu ngi romb mm-hmm. marra saxaab kem rombal nii mm-hmm. ñu jël genn gaal gu xam ne gu siggi la mm-hmm. gaal gu ñuul kukk la soo ci waree muy dem dem bu gaawit doo yëg ne mu dem da ngaa foog taxaw dégg nga watan saabu dana yooru moom gaal gi fil xibaa bi ci lëgg fil xibaa bi ci lëgg kal xabaa bi demel ni jaan buy dem ci kaw ndox comme jaan ji yoon de dem rek gaan goo nun la mel mm. moom lañ ma wax moom lañ wut mm. pour demee ko ci permenatu su ma taxaw nii topp ñu xooma mm. ilal murafaqati jëm ci àndaale ñu ne ma dañoo bëggoon nga ànd ak ñun fa la baytu ma xëyoo bi lisaanil muwafaqati ci làmmiñu dëppoo ma ne leen kooku moom d'accord naa du ko yàq falamma tawarrak naa ba ñu penkoo mooy ba ñu toogee xalal matiyati ci waru waay wi addahma wudaaji ñuul wa tabattan naa te ñu biiroo alwaliyata lalkaay almasiyata buraaji doxalal maayi ci ndox mi léegi nag gi teer ci tefes mi ñu nag dugg nañ pour dem mm-hmm. bi ñu duggee nag mm-hmm. alfay naa fekk nañ bihaa ci gaal gi seyxan mm-hmm. ak ak góor dañ fi fekk genn góor boo xam ne alayhi nekk na ci moom saqu sirbaalin tubay jurab aji ràpp tubay wa ak kaala baalin gudaa ji ràpp genn góor lañ fi fekk bu xam ne xam naa li ma mën a wax mandargam tële boppam daal laa gis parce que ay sagar laa gis ca kaala ga ca tubay ja seetoon nag ñoo xam ne defer deferu nañ ba ne seen col nga rafet na ñu defer li ñu war a ci bis bi ci ay naan ay lekk ak ay moket yu ñuy war a lal ak ne ñu ngee demi fañ koo defee pour war waay wuñ jàpp ne forom na déggoon ak ñoom ñu ci la ñoo demee ñu dugg ci biir fekk ci kii seetlu bu baax a baax faafa dal di sit hmm. aljamaata mbooloo mi hmm. man ki maxdara wa teewam hmm. bañ koo fekkee daal ah dëgg-dëgg daal dara <laughs> neexuñu fi dara kii dëgg saboté waay na fa te ñu ye te ñu yedd man ki nga xam ne axdara wa teewal na ko ba borom gaal gi ñu luyee sax dal nañ ci na ko yow waxoon nañ la ni ñu bëggee pour lan ngay def lii te waxoon nañ la ni ñu bëggee waxam mat itteewoon na moom mbooloo bi bi ibrahima ci génne góor gi lawlaa ma bu du doon li nga mi na sabinati ci gaal gi lawlaa ma bu du li nga xam ne saaba dellu na ilaya jëm mi mi na sakkinati ci dal tuuti kon daal ñu génne ko xam naa daal liggéeyee xel xam ne li kon mu ñaaw bu ëpp daal hmm. ak lor ko coow topp ñu ci mën coow fekk ñu mën na ma hmm. tax ñu bokk ci hmm. ko ma tuddee téere bi and daal bi topp noonu lañ jógee yu faram daal lañu bëgg ah ñëw nañ ci gaal gi xool ne danañ man dana man li ñu bëgg ah ñu jël ko ah fekk fi koo xam ne col nga am jubu wut ñu duur yére bi ci kaw duur yére bi ci suuf wane nañu na ak teewam neexuñu daal mu ne falamma lamaha ba mu géndee ko min naa ñun istisqaala zillihi diis keram ba mu seetloo ne daal ñun daal xajoo wuñ ko daal wastibraada tolli yi hmm. ak seetlu taw bi bisalam hmm. seetlu ne daal moom daal neexuñu fi daal hmm. xajowuñ ko ci gaal gi ba loolu xamee taarada gaarlu na mu lil munafasati ngir waxante fa summi ta noppi lool daf ñu lay waxtaan xëy na buntu waxtaan bu ubbee ko rek gindoo man naa am waaye ba mu waxee ko defuñ ca benn maslaa bu mujj noppi rek la man waxam dala wax alhamdulillah ba nga daan atasa ci gannaaw bu mu tislóore on summita ndokkee lesu wax alhamdulillah hmm. ñun waxuñu ko yarhamkallah hmm. te ndànk nag baax na hmm. te nit ki li ko bo xeyale boo ko xañee boobu dematoo ndànk kon ndànk moom baax na ak ndànk ci ngëp ak ndànk ci na faax na dem di noppi bi lii ne taraf nag koo xam ne defoo ko dara mu dem ba nga li la diine séddi ci moom sax mënatul la koo jox te defoo ko dara mu di seetantal fii maa ci li nga xam ne ala dellu na ilayhi xaaluhu mbiram ilayhi jëm ci mu seetantal daal niñ ko def nii wa yantadiru te muy muñeneku nusratal mabri ndimbalal ku ñu beew mm. alayhi ci moom mu wóor ko ne ñun lii ñu def mm. yëfi bax yi yëfi loxaraan rek la mm-hmm. yëfi foog ne ñoo ko ëpp doole rek la mm. kon nag dafay sës fi ki néew doole di sës rek te mooy xaar ndimbalal mm-hmm. li gën a wóora di ci àddina nag mooy tooñ ku wéedu ci yàlla dama mm-hmm. wóorul wóorul dara dara <laughs> nag mu ngi bokk ci gën a di wala mu ngi bokk ci gën a gën a wóora di wayantadiru te muy mu ñu ndeku mm. nusratal mabghi ndimbalal ku ñu beew alayhi ci moom xaalis ne ba jul naa ñi ba ndeelu nax nu ñun fi su joonin ci ay cëli waxtaan mm. ñu jël suñ cëli waxtaan mm. te min jiddin ci dëgg léeg-léeg ñu jëm ci mbiri waade mbiri hikma wa mu joonin ak i neen léeg ñu dem ci mbiri kafitam zikrul kitaabay ni tudd kitaabatay ni tudd ñaari mbind ñi wa fadlihima ak seen gëneel wa tibyaan afdalihima ak biral bi ci ëpp ngëneel ci suñu waxtaan lañ nekk waxtaan wi daw ba àgg ci mbiru xisaab ak mbiru insaaf xalaat génne dara bind ko ñii ko jàng wala lii luñu war a régler la war a régler fa qaala wax qaa'ilun aji wax ne hmm. inna katabatal insa hmm. naka bindkati insa yi hmm. am balul kuttaab ñu gën a tedd juróom bind yi xam ku wax ne ñii bind da def insa di génne ay maqaalaat ak i rasail ak i xutab ak i xasaid di def ay nawaadir yu bare bare ak i tarayif ñooñu ñoom la seen bind ëpp xiima ñu mm-hmm. ñoo mm-hmm. wa maa jeng maa ilun aji jeng mm-hmm. ila tafdilil husaab jëm ci jëm ci gënal way xisaab yi ñoo xam ne déedéet ñii lijjanti mbiru xisaab liggéey sàngam nangama ci xel la barab sàngam nangam lañ ko war a liggéeyee la seen liggéey ëpp solo waxtat dal di tat al daggeante bi kenn ku nekk hóolu la mu wax hóolu hin woo xam ne soo ko ca bëgg a génne du yow mu nekk daggeante wam sadda te tàllalu alla jaaju ku nekk mooy jalam mooy ñu wax ba noppi jot rek ku nekk noppi xataa ila lam yabqa ba nga li ci daal di ñaxal dagg hante mm-hmm. masrahun sànniwaay mm-hmm. wala tegasatu lil miraay ñaal weerante mm-hmm. masrahun wóoruwaay ba nga xam ne kenn ku ne wax na la may wax ba fi mu ne xanaa ku ne noppi rek la man wax na asayxu góor gi góor gi wax ne laqad asattum wallahi bëri ngeen yaa xaw mu yéen samay bokk àllaxata coow góor gi dafa wax ne yéen wax de waasartum solo ngeen asawaaba njub wal xalataa njuumte xëy na ay jàngkat ngeen ay boromi xam-xam ngeen bu ngeen waxee da ngeen wax xam-xam waaye wax ji dafa bëri moo tax mënul ñàkk asaka am na loo xam ne du ko yaa sawaaba ngi ji te lu dul sawaaba ngi ji solo ngeen asawaaba njub wal xalataa njuumte way na jëliyatal hukmi dëgg-dëggu xatte bi nag xen di nekk na fi man li ngeen di wax man xam naa li ci dëgg gi mm. lii dëgg gi fàtta mm-hmm. doon na ngeen gërëm bi naq di ci sama gëstu wala sama teewal mm-hmm. kon su ma leen waxee lii dëgg gi da ngeen war a xam dëgg lañu war a bëgg moom la ñuy wun ngeen nangu mm-hmm. wala tasal soote bu leen hubbeekoo di mooy bu leen laajee ci kenn baax di ci sama gannaaw te boo ba am dëgg amatul laaj yow la mu xam leen ne ann sinaatal insa hmm. naka métier insa hmm. arfan moo ëpp daraja hmm. moo gën a yëkkate ko daraja da yaa de wax ak kilifa yi yaay amee seeni kàddu yaay xam góor yu bëri yaay teel a dégginde yu bëri wa sinaatal xisaab yi métier xisaab arfan moo ëpp njëriñ mais yaay tax liggéeykat yi mën a jot seen àq jëflante te da tegee fa mu war a tegee ñaar ñu war a jëriñante ku nekk jëriñ morom ma jaay kat bi jënd kat bi buryee bi liggéeylu kat bi ba mu àgg rek waqalamul mukaatabati xalimaag bindante bind mooy insa xaatibun labat la su fekkee da ngay bindee insa kooku da ngay liggéeyloo sa xel ci mbir yi mm-hmm. ba xam yoo dajale dajale mm-hmm. mel ni kuy wut dara wa qalamul muhaasabati xalima xisaab mm-hmm. xaatibun aji taxan la su fekkee da xisaab nag da ay mbir yu dajaloo nga ne nii lañ war a tàggaloo wala ay mbir yu tàggaloo nga ne nii lañ war a waasatiral balaaxati waxi neeni balaaxa yi tun saxu del na ko toxal li tudrasa ngir na jàngir borom balaaxa yi seen waxi caaxaan yi ñuy wax dara ji ji insaaxam dafa jaral nit muy ji def xalal de ko bind téere de ko mool de ko jàng de ko mokkal ndig dara ji insaaxam waasatiral balaaxati waxi neeni balaaxa yi tun saxu dem na ko toxal li mm-hmm. tudrata ngir ne jàngee ko mm-hmm. wata saatirul husbaanaati mm-hmm. karne hisaab yi tun saxu dem na ko folli ko tudrata dem na ko ràppal waaye këyit boo xam ne doxinu mbir lañ ci bind hisaab bi nii la nii nii demee ba mbir ma doon dox rek loola da def soobu lañ koo sànni duñ ci am léegi rek li nga xam ne jamono bi ñuy amal dustoor bi boo bu duudoo nag moom liñ bëgg mu jag du jag waaye lañ bëggoon a jegal bañ pare rek sànni nañ ko dégg li nga xam ne mbindam incha allah mu war ko daray wal musiw kii def insa ñu naan mooy bind leesar yi mooy defar xutba yi mooy defar maqalaat yi ak mel noonu kooku joxe natal axbaar mooy kex mooy kii xam xibaar yi dëgg boobu koy xam-xamaan yi dëgg wa haqibatul asrar te mooy gafakaay mbóot yi mooy dëggukaay mbóot yi wa najiyul odama te mooy kii wax ak way màgg yi wa kabirul nudama te mooy magam ñii naan buur bi wa qalamuhu qalimbam lisaanu dawlati mooy làmmiñu nguur bi wa farisul jawlati te mooy jàmbaari lefam kursi bi mm-hmm. wa luqmaanul hikmati te mooy luqmaanam hikma mm-hmm. wa tarjumaanul himmati te mooy làkku tawhid mm-hmm. yu bëree bëri ci xalimaam lañ koy xamee woowam albasir mooy aji bégle wal nadir te mooy aji waade wa safir moo de aji tinu wa safir mooy aji héwédal maslex baax na ko dégg nga mu ne yu bari ñaare boo ko bëggee dox ci xalimbaag mun sii bi ci la mën a sottee ndax bind ay leetar jokkalante ay kaddu lañ koy defee fekk ba mooy sottee wa safiir mooy aji diggale safiir mooy ko dox ci diggante ay nit doxee ca jagal mooy muslix loolu lay firi ci waxi arab waaye jamono bi nag buñ ko waxee ñu ngi ciy jublu ku nekk ci réew moo dëkkut ndég nekkal fa sa réew mooy li ñu ambassadeur noonu mooy mu masil dawlatin fii dawlatin uxra mooy safir léegi waaye lu gën a bari rek boo ko soxlaa ci kilifa moom kaatibul insaam mooy ci man wasita mooy lim bëgg a wax rek bi ñuy ci moom su tax la su dee fi jagoo ak sayaasi tata yi seetlu nga bu baax a baax hmm. ci la buur aw nit ñu ne ci tata hmm. ñu génn ay jiko hmm. wa tuxtaadu te ci la deefi xomatee ah wa tum la ko te ci la deefi moomee an nawaasi njëhi bopp yi ci bu buur de tegee loxo ci barab ci lu dul jaasi jóg waaye leetaram dem wala kaddu moo dem rek ñu déggal bu yuxtaadu te hmm. hmm. hmm. ci la dee bi xomatee alhansi aji moy wax ju nit jàjji te wax ju jàjji nit itam ci xalamul insa la ko nit mën a génnee waaye mane bu ko génnee ci xalamul xisaab wayu saddana te ci la dee jege ñale alqaasi aji sori ku ne yaren xamoo ci moom dara mu mujj jege la li ngay kàddu yu joti ci moom lu gën a bëri ci xalamul insaaf ci lay sotte waaye xalamul xisaabi mënul lool wa sahibuhu te borom insaaf bëri woon aji dañ la mu minat tabiaati ci xaqi jàmbur aminun aji hóolu la mu kay da suhaati pexeem rambajkat yi te ñaare kii jëfandikoo insaaf lu gën a bari liggéeyam nit du ca lekkal na ma nangam mbaa na ma nangam ñu bari itam du ñuy xalaat pexeel ko pour dox diggante ma buur bi néewal ko doole wa saahibuhu boromam bari un aji dañ la mu min attabiaati caaqi jàmbur yi aminun aji hóolu la kayda suhaati pexeem rambajkat yi muqarrabun ku ñu tàgg la bayna jamaati ci diggante mbooloo yi mm-hmm. ni mu déggee arab ak ni mu rafetee xalima ak ni mu xamee jogalinu kaddu ni mu xamee adabi wax mm-hmm. yooyu la faral di waxtaanee ci moom mm-hmm. xayru muarradin duut ku ñu gaaral li nazmil jimaati ci noose ay jimaa mooy ay carnet jëflante ñii ko teg liggéey ba na méngoo réglé ko yu diis yooyu buñ seetee duñ koo teg kii bind ci insaaf xayru muharradin du ma ku ñun gaaral mm-hmm. li nazmil jimaa ci ci nootey jimaa mm-hmm. mooy kan nay jëflante yi mm-hmm. fala mantaha bi mu àggee nag moom waa ji fil fasli ci xàtte ila hadal fasli jëm ci dayo bi bi mu waxee ci insa baasi fii nag laxada gendee koona min lamahatil qawmi ci bëti nit ñi ne annahu moom isdara bayna mooy faggu na xubban cofeel wax bu buxdan ak mbañeel waa daa gërëm loona baadan ñenn wax fada te mu merloo baadan ñeneen bi mu waxee ci mbiru insa baag si fii nag ñë waxoon ne bindkat yi insa yi ñoo gën kontaan nañ gépp kontaan mm. waaye ña waxoon ne xalamul xutta bi ñoo gën mm. ñooñu nag dëgg dëgg kontaanuñu mm-hmm. mu gis ne am nañu kontaan torop ba mm-hmm. am na ñoo xam ne safaanu mu am ci ñoom mm-hmm. xamee na ko ci cël may isdaraha bay na mooy fàggu na xubban cofeel wa boo daan ak cim ak waa taa gërëm loo na baax daan ñenn ci ñi wa ahfada te mu merloo alxafida mooy lismu bi mooy mer mm-hmm. bokkut ak hifdu wattu mm-hmm. dégg nga mm-hmm. baadan ñeneen fa xaqaba mu mujjal kalaamahu waxam bi an xaala ci bu mu waxat loolu moo tax noppewu bi waaye dafa dafa tofal lii di ñëw ne illaa anna sinaata alxisaabi mawduatun ba mu àgg illaa anna sinaata alxisaab ndare métier mi hisaab mawduatun mm. lu ñu teg la mm. ala tahqiqi ci dëggal mm. kii jëfandikoo hisaab dafa xam lu mu bëgg xaqiqam leer ci boppi nit ñi wasinaatal insa métier insa mabniyatun lu ñu fondement la ala tasfiqi ci tappe kii jëfandikoo insa nag xel mi day daj fii lii daj fale lële daj fale lële mu seet lañ daj fii ak lañ daj fale ak lañ daj fale mm-hmm. nuñ leen boole bañ mën a ànd nekk lenn mm-hmm. su ko defee ñoom ñaar bu ñu teeree mm-hmm. muhaasib bi bu dëppoohee ak sawaab kenn du ko re mën a critiqué waaye moom sii bi ku wuuteeg moom xelaat rek da nga ko mën a digal dinga ko baax a baax xisaab su fekkee moom nga liggéeyee la nga liggéey xaw yoon nit daa ñaanee wut ko mm. soxatee wut ko mm. ba mën a wax gisee wu ma mm. ko nii te loolu wax tey un plus deux trois loolu buñ la ko joxoon examen wala ci di la nattu ndax daraje boo a bëgg ak ku lay mën a corriger man da wax gisee wu ma ko nii mënu kenn mën da wax nangu rek la ci nit man waaw gis nga ko bu baax a baax waaye su rek kala bindal ci nangam nga xilaat bind te lu mu baax moo xam loola ab xasida la wala benn xutba la wala benn maqaala la wala lettre bu jëm ci nit la keneen mën naa jël yér ne li daal ma defe naa ko ko dindi woon li daal man defe naa ko yokke woon li daal man defe naa ko ko waxee woon nii la ko def rek mooy dafa am mu teerukaay bu xam ne ñëpp mën nañ ko bu baax a ko bu baax a baax waaw su ko defee su fekkee moo la gën a mën naa dem a dem a dem mm-hmm. ba joŋeen gi waaw mu nëbb ci bu xam solo waaw mm-hmm. ah, ci insa lañ ko defee mm-hmm. ah, ko def nit ci insa gis nga bu baax waaw ah, ci insa lañ koy defee nit waaye duñ ko def nit ci insa gis nga bu baax waaw moo taxoon xelaati nit ñi du may faral da ci dugg ñaare ñiy bind dara dama ko joxe su ma ko jàngee dama leen koo delloo rek bind bu baax a baax waaye su ma bindee dara it ba wóoru ne noonu la nag ak a gisi wu ma ko nii rek lu tax ma bàyyi li ma wóoru ne ndax may woon loo xam ne dëgg la rek waaye gis gisu boppam moomu suma xel bi moom moom kalam mi la am rek waaw mi la am rek ndax may lu ma xamee ne moom wax na dëgg rek ma xam ne dëgg la wax na rek waaye pour xalaatu boppam rek wax dëgg yàlla kalam mi la moom mais moomu suma xel bi moomu ko moomu ko réeru baax a baax kon loolu moo tax du ruuj saa te même wut noonu. gis nga ko bu baax a baax. waaw gis nga ko bu baax a baax. xam naa yooyu suma affaire dégg nga wa qalamul xaasibi xalimba kuy xisaab daabitun aji takkala su fekkee yow da ngaa jëfandikoo xisaab dafa am looy bëgg a wane ni la demee rek amul leneen wa qalamul mumsi qalim ba kii def insa xaabitun aji dajitu la sooy jëfandikoo insa da ngaa wuti yoo dajale wane ne lii ma lii maa ko boole jëfandikoo bu baax a baax bokkuñu de wa bayna itaawati tawdifil muamalati muamalati te nekk na ci diggante fayag waru gari jëflante watilawati tawamiri sijillaati hmm. ak jàng téere sijillaati hmm. baw nun tàggaloo goo xam ne la yudriko du ko jot xiyaasun benn xiyaas hmm. wala yaxtawiruhoo te du ko gaar iltibaasun benn lënt mu ne te lii ngay liggéey lii moo ji sa droit dañ la ko jox bokkut ak lii téere la diw sàngama ko bind mën nga ko yër mm. mu ne bokkuñu de mm. wadifa mooy loo xam ne da ngay faral di ko doxal mm. liggéey boo xam ne dañ ca nekk te xam nuñ ko tëralee par bis lay do wala par weer lay do wala par semaine lay do mooy fonctionnaire dégg nga moo tax mu wasi fonctionnaire ñaan mu wasi mooy fonctionnaire dégg nga waaw ah, moo tax mu fonctionnaire ñaan mu wasi dégg nga nan la demee dégg ah liggéey lay doon boo xam ne daawam ñoo koy waaye dafa am nag nu muy tëddee di ko doxee par bis wala par weer wala par semaine wala yi mel noonu mu ne xam nga nag wasaayif yooyu nag droit yi cee jox ko ne kaay bokkul ak téere bi diw sàngam moo ko bind jël ko liir bokkuñu waaw wa bayna itaawati tawdifi l muamalat nekk na ci diggante fay waru gari yi mm-hmm. wadaay bi xam ci diggante nit ñi muy seeni jëflante seen biir ñoomu neen mm-hmm. droit ya nga xam ne moo jaay xam mm-hmm. nekk ci digganteem wati la wati tawamiri si ak jàng téere si yi ak yenn mbir yi nga xam ne xel moo ko enregistré rek ñi bind ko génne ko di ko wane jël loolu di ko jàng hmm. ak téye signature yooya hmm. mooy uutee na nekk na seen diggante baw nun tàggaloo hmm. ngoo xam ne la yudrikuhu du ko jot xiyaasu natt kenn mënu la koo nattale wala yaxtamiruhu te du ko gaar iltibaasu lënt is ngir alitawatu fay tam la u dana mu feesal alak yaasa ay porte monnaie wa tilawatu jàng moom tufarriqu day féexal ara sa bopp mm-hmm. mu kii luy diisal sa kalpe la mm-hmm. kii luy jël ci sa yuru bopp la mm-hmm. xam nga bokkuñ wa xarajul awariji fay awariji mooy fay liggéey yoo nii dana mu xoomalloo an naasira aji muñandeku wa sirajul madariji génne lu ñu taxañ ci kayit yi hmm. jël téere yi di bind hmm. di jàng hmm. yu an dana mu sonnal annaadira aje xool mu ne xam nga bokkuñu kii moo lay régler sa koom gi kii nag xanaa di jël ci sa yuru bët da lay indil ay coono lay sa yuru bokk wa awariji fay awariji yuxni dana mu xoomal loo annaadira aji muñandeku wastixraajul madaari yi génn yu ñu taxañ yi te mooy lemmi téere di ko jàng yoo an nii mu sonnal an naadira aji xool summa innal xasabata topp way xisaab yi xafadatul amwaal ñoo de way wattu xalal yi wa xamalatul asqaal ñoo de way xenu diis diis yi te ñi xamee xel mool xisaab ñooy mën wattu xalal yi te itam xen bi gën a diis ci doxinu société bi mm. daanaka ñoom ñoo ko xenu mm. ndax itam société bi amul benn bu muy toll mm. du soxla halal te nag ñoom ñooy toppatoo halal bu ko duut du sotti wal maalu muskaana timsaalun yutaafu bihi wannaasu musquliqoo abbaadu timsaali mu ne alal ba amee la de xërëm nit ñi it bañ xamee lañ de jàmmukate xërëm googu loolu moo tax nit ñi kenn mën da dindi ci seeni xol bëgg alal mm. wannaas wal maalu muskaana mm. timsaalun yutaafu bihi mm. wannaasu musxuliqu xabaalu timsaali isaa jafat duura fan an naazilina biha mu ne kër gum bañ a dugg moom halal nag soo xeboo nga fay dal de ku fa dal de bu xeboo ñu tàgge la te xam ne dee rek nga faa defee waaw mu ne kër gum bañ a moom alal de soo xeboo nga fay dal de ku fa dal dee sooy nga tàggi ko ndax xam ne dee rek la fay xaar de mm-hmm. isa jafat duura mm-hmm. fan an biha mm-hmm. waaw bu bañee ay kër tàggeel ña ca wàcci awil mamalika fan dubha ka atlali réew mu mu nag sooy boo nga yuuxu ko comme gent awil mamalika fan dubha ka atlali ya taliban li maalil mulki mujtahidan yow mi bëgg falu te dogu ne danga am nguur xusha min al ilmi aw xusa min al maali mm. da nga ko wutee ci xam-xam mm. ak ci alal mm. ndax yooyu ci la nguur mën a tabaxoo bil helmi wal maali yabni naasu mulkahumu mooy nit ñi suñu bëgg a tabax nguur ci xam-xam ak ci alal ci lañ koy tabaxee lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlaali waaye yoroo dara amoo dara kon kan ngay war a doon waaw ah. yoroo dara amoo dara yoroo dara xamoo dara kan ngay kan ngay war a doon man ta nekk te loolu waaye lam yub na mulkun ala jahlin wa iqlal yow xamoo dara yoroo dara kon kan ngay war a doon dootoo kenn lan moo ci nekk kon gis nga mu taxaw société bi xam ne bu duggul ci kër kër ga moom ku fa toog it la dee dee moo la fa jëlee sooy boo tàggee ko ki nga xam ne mooy tax mu réglé kenn gënu ko di seen dana isa jafa duura fan an nasilina biha kër gum bañ a dugg daal soo yeboo yow nga bañ ku fa wàcci soo yeboo nga tàggee ko ndax dee la fay nekk la fay isa jafat duura fanaan nasirina biha awil mamalika fan duha ka atalali wan naqalatu ñoo de wéy yi alas baatu ñene ñuy dëgër lu ci ñoom te xisaabkat yi ñaare lu ñu wax kenn du koy mën a dindi ndax dañoo topp mbir ba def ko taqiq mën wax ne lii la wa safaratu ñoo de ndaw yi astiqaatu ñene ñuy dëgër lu ci ñoom wa alamul insaf ñooy xàllam ñooy xàllami sellal jëflanteeg nit matal xaqam mm. ci ñoom la ko nit di manee mm. wala intisaaf ak jël saaq mm. jëflanteeg nit jël li moom loolu ci nit la ko ci ñoom lañ ko manee mm-hmm. wa suhuudu ñoo de way seede mm-hmm. al maqaani a ñu de ñuñ doyloo mm-hmm. fi la xilaafi ci wuutee ñaare bu wuutee xamee ñoom buñ liggéeyee seen xam-xam fañ koy teeral ñëppay bokk nangu wa minhum bokk na ci ñoom mm. almustawfi aji matlu mm. alladi aji matlu joo xam ne mm. huwa moom yeddu sultaan mooy loxol buur bi wa kutubu diiwaan te mooy kilifa ak mbooloo mi wa qisaasul amal te mooy peese waayu jëf yi wal muhayminu te moo de aji fuglu alamal ci way liggéey te am na ci ñoom ñu foora foora foor ñu xam ne taxawaay yu rëy lañ am ci société bi ñoo am na ci ñoom al mustawfi aji matlu mm. alladi mustawfi bi nga xam ne mm. moom yadu sultaan mooy loxol buur bi mm. wa kutubu diiwaan tey kilifa ak mbooloo mi wa qisaasul amal tey peese waayu jëf wal muhaymin te moo aji fuuglu ani loom maa xala ci way liggéey yi way na ci moom almaabu delluwaay fi silmi ci juboo wal harji ak wa alayhi nekk na ci moom almadaaru sukkandeku waay fi daxli ci tabbi wal xarji ak génn mu ngi kees bi xaaral ma génn wa bihi ci moom la nekk manaatu darri haji waaye lor wal ma wal wa bi yeddi nekk na ci loxoom ribaatu lixta bu mi joxe wal ma ne ak tere ma ak xisaabkat yi laaw dat kon xalaku samaratul iktisaab meññatam faggu kon liggéey doo mën a jot ci saax dana bëri wala tasara te ni jokkoo te te ni konoon jokkoo attaxaabunu naxante ila yawmil xisaab ba ci bisu xisaab bi ni konoon heure bu nekk rek ku ne naan ni ma diw def ni ma diw def waaw ñu jàng lool ba beneen yoon insha allah aram liya saabi konoon jëflante yu bare bari du mën a tegee ci yoon naka noonu soñaange yu bare bari itam duñ ko mën a mu ne wala kaana te nekk nidaamul muamalaati nooteeb jëflante yi maxluulan te duñu fecci wajuhu zulaamaati nekk jamab toñaange yi matlulan de lu ñu neenal mm-hmm. su fekkoon du xalamul wa sayfu mm-hmm. nekk jaasi tooñante mm-hmm. matlulan de lu ñu boj su fekkoon du xalam ak xisaabkat yi konoon jëflante bu tegee ci mandu du mën a nekk konoon itam jël xaqi jàmbur delloo ko nanga ko jëlee du mën a nekk ni konoon jëflante nit mu jël xaqam nga jël sa duñ xam yoonam wala kaana te nekk nizaamul muamalaati nizaamu jëflante yi nooseeb jëflante yi hmm. maxlulan te lu ñu fecci hmm. wa juru sulaamaati nekk jami toñange yi hmm. maslulan te lu ñu neenal wa jiitu tanaasufi nekk loosu hemoo maxlulan te lu ñu ga wa sayfu tazalumi nekk jaasi toñante maslulan te lu ñu bëcc ala an yara al insa xandal xalima ak insa hmm. mutaqawwil aji fent la hmm. kii jëfandikoo insa hmm. day fabriqué ay wax yu wax ne moom moo ko de wayaraaxa xisaab xalima ak xisaab mutaqawwil aji tawil la xalima xisaab dafay jël ay mbir delloo leen ci benn delluwaay nangam ak nangam boo leen par nangam cër bu nii la wala boo leen boolee mm. ndii la mm. wala boo jëfandikoo multiplier mm. nii la wayaraan xisaab bi xalimbaak mu taawilun aji taawil la wal muhaasibu kii jëfandikoo xisaab munaqisun aji lu ñutu la dafa jël ay mbir da leen lu nekk fu mu war a pare wal muusi kii jëfandikoo insa abu bara abu bara la benn picc la bu bëri ay melokaan mm-hmm. sooy jëfandikoo insa daanaka doo sérieux ci wenn waxin mm-hmm. léeg-léeg nga taggaate léeg-léeg nga xasaate léeg-léeg nga sant léeg-léeg nga ñaxtu mm-hmm. léeg-léeg nga tawat léeg-léeg dimbal léeg-léeg nga tawaate ak yu mel noonu wali kilayhima na képp ci ñoom ñaar nag xumatun dangat xiina yarqa waxtu waa dana héeg ilaa yulqa ba sànne fat ko wa yurqa ak mu moccefat teewali nag kum ci mën a do ji yàlla def ci xalimba xam na ko ci xalimbaam selon bu baax a baax te nag yàlla ci def doole i yaxdumil xalamat sayfun la di xanaat lahu riqaabu wadaanat xawfahul umamu mu ne jaasi ki ñëpp ragal li muy liggéey ci kaw xalimba lay topp kon surgaaw xalimba la loolu bu xamee yaxdumil xalama sayfu lladi xadaa lawu riqaabu waddaanat xawxool umam loolu bu xamee fal mawtu wal mawtu laa shay'un yuqaabiluhu maa zaala yatba'u maa yajri bihi lqalamu mu ne lu fi yàgg la xanaa xamuloo ne malakul maxfuudi ki xalamul malakul mawti ki xalamul maxfuud bind ne war nañ ko jëli kooku lay jël fal mawtu wal mawtu la shay'un yuqaabiluhu ma zaala yatba'u ma yajri bihi alqalamu biza qada allahu lil aqlaami musburiyat inna suyufa laha muskurifat xadamu ah biza qala biza qada allahu lil aqlaami musburiyat inna suyufa laha muskurifat xadamu mu ne ba yàlla sàkkee xalima muy luñ xett lii la ko dogalal mm-hmm. ba ba jàppi doxee kuñ daas ba léegi mm-hmm. ci kawam lay topp mm-hmm. waaw ne ba xalim ba doxee kuñ xet jaasi de kuñ daas booba tey lii dogal yàlla mooy jaasi ci xalim ba lay topp bisa qadallahu lil aqlami musburiya inna suyufa laha muskurhifat xadam moo tax kum ci mën a doon rek mën naa ko neexee xalimbaam mën naa la jël wala kile yi ma ñaal na képp ci ñoom ñaar ummatun dangat xëy na yarqa waxtu waa dana yëg kuñ tëj kaso te lettre nit ci lañ ko tëjee kaso rek lettre bu nit bind ci lañ ko tëjee kaso day am léeg-léeg ilaa yulqa ba sànnee fat ko wa yulqa ak mu fat ko ala kulli al ku ci nekk ci mansibam daal da bu am doole wayanatun ak sonn le fi maa ci li ne yun sawu dem na ko sos hatta yoxsa bata dikkaleef ko fuyura mm-hmm. fuyusa ak bu ngerefat comme mm-hmm. ci maanaam dafa ko soo lekk ngeer daal mm-hmm. mën na koo lekkee ci liggéeyam wayaanaatun ak sonn lekk fii maa ci nga xam ne yun saa def na ko hatta yoxsa bata dikkaleefee ko fuyusa ak bu ngerefat illa alladina ndare ñi nga xam ne amano gëm nañu wa amiloo te ñu jëf asalihaati jëf yu baax hmm. lu mooy xisaabkat yu sellal yi hmm. ak mun borom insa yu sellal yi hmm. wa qaliloon te aji néew la maahum ñoom te insaaf bëriwul ci kuy def insaaf insaaf bëriwul ci katabatul xisaab wa qaliloon te aji néew la maahum ñoom maa misil la la duñu ko firi aale qaala al haaris ibnu hammaam xaaris nee na falamma am taa ba mu yóbbalee alasma nopp yi bi ma ci lu xam ne raaqa yéeme na wara ate mu tiille bi mu waxee lii ci insa ak ci hisaab ñun ñëpp ñu xéemu istansam naahu lañ nañ ko askana lañ nañ ko ci ñoo bokk fastara ba mu sikk wa aba mu bañ alintizaabu askan mu ne ay yéen ñi mu leen lu leen di wax ak mu dëkk lu leen boole ñi mu leen benn wax ñu ne bokk lu leen boole loolu leen wax lu mu leen xam nañ ko defoon bañ ko fekkee jekaal istansam naaw sàkku nañ askanam laaj nañ ko ñum bokk fastara ba mu dikk mu sikk mu ni wóoruwul waa baa mu bañ alintisaabu askanu du ñu wax ak um dëgg wala wajada bu amoon mun saaban yooruwaay lan saaba mu yoor xam naa tolloo nag ñu ngi ci ndox mi ku génn gaal gi doo xam fooy jombul loolu ko booleeg ñun waaye xaw su mënoon a génn wàccee ñu gaal gi sax dafa génn fa mahamal ala xummatin ci njàqare mm. min labsihi ci jaxasayam mm. man nag manoore bi ku ko xam mm. ànd ak ay nit leeralale leen ni mbir te nangu ko wax fa nga man sa mbiroom dara ma jaax tax lu jaaxal ma daal fa asaltu ma amal ala xummatin ci njàqare min labsihi ci hatta dakartu ba ma fàttaleku hmm. baada ummatin ci gannaaw ab diit gannaaw ab jamono hmm. ma toog def xalaat ba mu yàgg hmm. ma fàttaleku am suma xel de baatu umma dafa bëri ay maana bokk na ci diina milla inna wajadna abaana ala ummatin bokk na ci jamono muy mm-hmm. waddakara ba'da ummatin bokk na ca taxawaay mm-hmm. nga ne ummatu zaydin tawila fana qamatuhu kenn ku baax mm-hmm. dañ ko umma inna ibrahima kaana ummatan qanitan lillah naka noonu itam ñoo topp ab yonent da diina dañ leen umma ni ki muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naka noonu kenn nit koo xam ne dafay dund ci benn pas bu mu amul ñaareel comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl Makka la dëkkoon gëmu doon jaamu xërëm te jaxasoo doon ak yenn nit ñi ba xam yeneen diina yi ne ci dëgg-dëgg moo jur Saïd ibn Zaydin kooku dañ ko wax umma selu baax baax naka noonu ummatun yaay bu ko defee bi maana yooyu de la bi maana yooyu de la am jamaa mbooloo itam danga koy biri wa min qawmi Musa ummatun yahduuna bil haqq ak mbooloo la baat bi maana yooyu la am li millatin wa zamanin wal qaama dañ ko jëfandikoo ci diina dañ ko jëfandikoo ci jamono dañ ko jëfandikoo ci wal rajuli saalihi wal jamaa da ko jëfandikoo ci nit ku baax da ko jëfandikoo ci mbooloo wa rusli ak ñoo toppab yonent wa man kaanan farat bi diinihi ak mun farit bi diinihi wal ummu lummatu warat ak ummun yaay ummatun baa di ci la ñuy jëfandikoo maani umma te lu mu baax maana yi ci la ñuy jëfandikoo baatu umma maka ta dakkartu ba ma fàttaliku ba'da ummatin hmm. fa qultu ma ne ko walladi giñ naa ci buur bi nga xam ne saxara tàggat na mu hmm. alfalaka falak addawaara bay warakoon hmm. wal fulka mu tàggat gaal asayyaara gay doxakoon ma ne ko maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne mooy yëngat lépp lu yëngatu ne inni man laa ji danaa fekk riha abi saydin xañeg abu saydin te daal mandargam Abu Seydin feeñu na ma torop wayin kuntu doonte nekkoon naa ahadu de ko miin saruwa in muy borom taar waaye din ak kattan man naa xam melokaan ba ma ko gëjee woon bokkul ak melokaan bi ma gis tey loola nag mooy soppeeku waaye li dul soppeeku daal moom kama ba woon gannaaw kon soppeeku loola hmm. du teem a yaakaare ne kama goon gannaaw la léegi hmm. li ma gis mu ne la ma daan gis hmm. lu soppeeku fa tabassama mu muuñ daayi kan daajire wax mu bare wa qaala ma ana man huwa may abu saydin man la halas tihaala tihaali ànd ak jàllale ba ku sama mbir wa hawli ak sama kattan Eh, man la xëy na yéeg ma bàyyi woon démb ak yéeg ma te tey ci tooga di àddina bokkuñu tax na nga fakk ma fa qultu wax li asaabi ñaar samay àndandoor ma wax samay gaay ne leen hada kii alladi mooy koo xam ne la yufra defu dagg fari yuhoo lu ñu daggam mooy amul morom duñ ko dendale kenn wala yu bara defu garlanteeg moom xam mm. xariya defu garlanteeg xam mm. xari yu hoo mbiram moo xéeme mm. mooy sang dëgg la xam xar ñu ne baral la ci baadiye yi jinne yee ko dëkkee su mbir xéeme naan xam xari yu la faxata boo labat min wucci moom al wudda cofeel bi ma waxee li nag ñi bëgg koo xaritoo wa badaloo te ñu jox la woo ñaal ko al wuj da koom ba yëkkati dara de ko jox faraxi ba mu sib xanil ul fëtti ci tappoo gi mel ni liñ ko jox sabu ko amul benn nim si itam nag ci xaritoog ñun daal wa mu ne ama baada an saxtum daal gannaaw bu ngeen wàññee bu ngeen gottee xaq yi sama xaq hmm. li ajali sa xaq ngir sama rap rek hmm. gis ma def ma defin bii hmm. te tegu leen ko fenn xanaa gisee wu leen ma yëre yu rafet ak rek ko ngeen ko teg wa kasabtum te ngeen muur baali sama xel li axlaaqi sir baali ngir ràpp sama mbubu bu mu ràpp mu ngeen ma gisee rek tax definu wune ngeen def ma ko ci xeeti sabooteeg ñàkkal fayda gannaaw loolu la fa ma araku man mënu leen a giseeti illa bin ay ni ndara ci bët asaxinati buraaji tàng man wax dëgg daal xas naa leen mere te mere leen rek laa di man daal xas naa leen mere daal te mere leen daal laa di man waaw munu ma leen xool leen leen daal lu may ni ku leen mere xam naa leen mere te daal mere leen daal laa man waaw wala lakum ñaalul leen min nii ci man ila sohbatu sabinati ndare ànd ak gaal gaal gi dal moo ñu boole kon ñu jàngal loolu bene incha waaye ñu ko bëgg a waaye daal bañ na daal ci la wéyee wéyi isma uxayya wasiyatan min nasihin ma taaba mahdan nusi minhu bi xisihi ba mu àgg mu ne isma déggal uxayya sama mbokk wasiyatan laye biir min nasihin tukkee ci aji laye biir joo xam ne ma taaba jaxasewut mahdan nusi aji sell laye biir minhu ci moom bi xisihi ci njaram dénkaane ngi nii bàyyee ko ci layekatu biir bu xam ne du naxe ay laye biram du ci dugal naxe maasaaba jaxasewut max da nu si jaman ba xiste yi ci njaram laatana jalan balde gaawee bi xadiyatin ci àtte mabtuutatin ba de bu ñu dagg fii max man ci nattu ko ci tagg koo xam ne lam tablu nattu aw xas yi wala ayi balam di yëkkati nit te teguloo ko ca xam ka ngay yëkkati loolu bu ko de def di gorojal nit te teguloo ko ca xam ka ngay gorojal de ko de ba ko de def nit daal boo ko xamagul da ngay xam ne xamuloo ko rek nga tey ci moom jarul nga di ko takkal lenn jarul nga di ko takkaayal lenn laatan jalan bul gaawee bi qadiyatin ci xàqe maktuutatin bari bu ñu dagg fii maximan ci tagg koo xam ne lan tabluwoo natt waloo ko hmm. aw xasu yi wala ay bala hmm. waqim na nga taxawal hmm. alqadiyata hatte fii ci moom xataa tajtali bata nga feeñale wax fay ñaari meloom fii xaalay ridahu ci ñaari jamono yaa benn ba la ba bas yi ak jàppam nga war a fekkan na doxalinam ci kontaanteem ci meram doxalinam ci bu amee ak bu ñàkkee ci buñ ko soxlaalee mm. ak buñ ko soxlaalu mm. boobu ngay xam li mu jar nga mën a xam lu koy sédd mm. boobu nga xam li mu jar boobu ngay xam li mu jarul nga mën a la xañ nit cëram kooku la lu mu ci maa dana teeri dana ko yoral waaw lu mu ci maa dana teeri dana ko yoral waqim na nga taxawal hatta tajtali bata nga feeñale mm. wasfay ñaari meloom fi xaalay ribahu mm. ci ñaari jamono yaa benn ba ngërëmam la mm. wa batti ak jàppam wa yamina tebir xulla bu aji huruji melaxam min sidqihi ci dëggum li saibina ñaal way séenu yi woom loo bir taw waameem min tafsi ci taw bi bisalam nit daal ana kulli ar danga ko war a jàng caay yëngatum yu xiir ba xam ko bu baax a baax mm. fo wu naa ka ca boobale mm. ca boobale na mm. intara booy gisee maa lu xam ne yesinu dana mu ñaawal fa war yi nanga ko sutura karaman ngir tedd nga gën a jeew nit ki nag boo ko seetee ba xam ne kii baaxul yow nga ne koo baax ku bañ a nekk di weer yi bi nit ñi rek boo ko seetee ba xam ne kii baaxul yow nga ne ku baax ku bañ a nekk di weer yi bi nit ñi la taltamis min masawil naasi ma sataru nit ñi seen ñaaw ñaaw yi ñuy nëbb ba koy jéem a sàkku de ko weer fa yatika allahu sitra min masawika ndax boobu bëgg a génne lu nit bëggul mu génn yàggig loo bëggul mu génn selum waaw ah sooy bëgg a génn lu nit bëggul mu génn yàggig loo bëggul mu génn de la taltamis min masawil naasi ma sataru fayatika llahu sitran min masawika mm-hmm. nit ki kay gannaaw waxtaanee ko rek la mm-hmm. waxal lu rafet li nga xam ci mm-hmm. ma fihim ida dukiru wala tahib ahadan minhum bima fika loolu mooy mbaax wayin tara boo gisee maa lu xam ne dina dana mu rafetal faa fii nga siiwal ko nanga ko siiwal wa man istaqa ku heyoonam al istiqaa yéeg faraqihi nanga ko yéegal nit soo ko seetee gis ne loo jar fonk moo ne ci moom da suba fonkeel gu tegee ku ko jar la rek wa ma ni taxaat ku xëyoo sippi na fa wut te woon ko sippi fi xas yi ci paxam wono dam ni kenn su fekkee loo jar daane rek la nga gis ci moom daane ko loolu la jar waalam xamal ne bi am na tibra wurus xaafin aji nëbbu la mm. fi erqi saraaci ci xaali suuf mm. ilaa yu saxaara jëm ci bu génnee bët ko mm. bi nafsi yi ci wàqin wuru som ne ca biir suuf sa mënoo koo xamee ci kaw suuf si de mënoo cee xamee wurus bi de moom kay bokk si nga gas baax gi ca wurus ba génne wurus ba nit yi nag am na yum biidoo yoo xam ne jaxasoo gu nit da xamee ni moo la koy wan ci moom waaye gis ko nit am na yum biiroo mm. yoo xam ne jaxasoo bu nit da xamee ni mm. moo la koy wan ci moom mm. waaye gis ko rek du tax nga xam loolu moo tax ne gannaaw xama ko da nga war a tey ci moom waanam xamal ne bi am na tibra wurus xaafin aji na buda fenqi sara ci cosaanu suuf bu nee ci biir suuf si doo ko xamee ci biir suuf si rek ilaa yu tasaara jëm ci bu génnee bat ko bi naf si ci waxin fokk si da ngay gas ba jot wa fadilatu diinaar yi ngëneelal diinaar yazaaru dana feeñee sirruha bóotam min hakki yi ci mooy def ko ca seetu kaayam laa duy feeñee min malahati naqsu yi ci rafet ak boyaade wurus foor na wala foor ci seetu kaayam lañ koy xamee waaye du ci couleur lañ koy xamee couleur moom doole la rek loo ko def moo rafet waaw wa min al xabaawati bokk na ci ndox nag an tuaasima nga màggal jaahilan aji réer li si xaalimal basi yi ngir pompak malaanam waraw na si raqsi yi ak ak taarak boyaadeem bokk na nag ci ñawat yi gis nit gisee ko col nga rek dëkk ci ga di ko te fekk na yeneen a nga feeñ ci yoo xam ne tax na mënatu da taaru mm-hmm. donte mu ngi solo nu ne mm-hmm. gis nga baax a baax mm-hmm. inni ka anni ara man laa hayaa lahu wala amaanata wasal qawmi oryaana mu ne mat nit su ma nemmee ko ci moom ñàkk jom rusu da def yenn yi su ma nemmee ko ci moom ñàkk kóolere bañu lu huruj lum solu solu rek daal ku def yaramu neen la ko mën a jàppee ndax lum solu solu rek bu defee nga gis defin bu jeget seetloo lum solu solu rek boo jaxasoo ak moom gis jukko ju jeget te lépp lu ne ak peñam jagul rek su peñee huññee ku dikk na ni nga gisee am cër yoo xam ne peñam jagul noonu la amee jëf yoo xam ne peñam jagul noonu la amee jikko yoo xam ne peñam jagul te lépp loo xam ne feeñam jago bu feeñee rek bu di gën a moo tax na man daal nit daal am na jikko yoo xam ne su ma ko seetloo ci moom ak defin yoo xam ne su ma ko seetloo ci moom bu soloo ba ne si mbir daal man ko def yaramu neen la ko mën a jàppee ndax it col nga gi teewut am na loo xam ne feeñam jagut te mu ngi feeñ ku xam ne dafa mel noonu nag nga dëgg col nga di ko bàggal xam nga doo nit awantu lii na wala ngay doxaa dal muhaddaban ku ñu sellal fi nafsi ci boppam li durusi bisati yi ngir ràpp ko dayam war a dégg nga wala sati fursi yi ak aji ràppi lalam nit koo xam ne mel na nam war a mel mënoo koo seet ba defin mu jagat yi mënoo koo seet ba gis ci moom jikko yu jagat yi gisewoo rek gisewoo ko lal bu la rek tàng di ko yigal selloo ko temum hodoona fokk ko day gëni wali basu taqwa hmm. salika xayrun ko day bi nga xam ne mooy sutural nit ci alafanul xabiha hmm. de sutural nit ci alafanul sami al awsa al awsa bu samima hmm. moom hodoona ca bam jot wala kam ak yi tim rëy ni bari na borom ñaari sagar xiiba wegees na ko li fadli yi ngir gëneelam mm-hmm. léeg-léeg nga ci mbooloo mm-hmm. xam koo xam ne gënu caa rafet lu ñu sol mm-hmm. waaye ñëpp ko ko respecté yu mbaax yi ci moom comme ko bokk pour day ni bëri na ku ñu rafetal ñaari mbubb xee ba ayi bërees li fuusi yi ngir ñaawala léeg-léeg nga gis ku solu baja waaye ñi ko xam jaralul dara daaw ma doon dem hm. bi kaan bi lu lu ma toog ci palaasu Iran bi ñoom wala tàmbul nga daan dende jaay téere am benn téere si yëpp ñu seen ak waaye mu ngi sol complet de la bu la nga taraxa ñag ne ma seen nga kële ma ne ko amal ma tafukat la sooy wala bu la jege waaw yëre yëpp sol ni mu rafet wala naa faas la di la waaye seen nga kële ma ne tafukat la de xam nga yëf yu rafet yi duñ ne dara moom moo ko xam jarul ko dara li mu gis mooy kii baaxut a jege mm. te ku ko déggal doo ko jege mm. te solo boo duñ ca dara mm. <laughs> waaw maa ngi du lor alhamba jaasi wayisal fata ndegam waay wayisal fata ndegam waay lam yax sa dikkalu taaran gàcce nit su fekkee mënoon nemee ko ci woon defin wu ñaaw mënoo nemmeeku ci moom jikko yu ñaaw hmm. lam takun du nekk ahmaluhu ay sagaram hmm. illa maraqi absihi ndara di xéegu waayam ci lala nguuram hmm. kooka melokaanam ya doy na ko taar inna allah akramana bi zinatil islam sayidna omar loolu la daan wax ku ne xam ne yëre yuñ def daanee la daan sol ku ne xam loolu la daan sol waaye loolu daan ne ko wax idal mar'u lam yudnis min al lu'mi yardahu fa kullu ridain yartadihi jamilu nit su fekkee ne moom tilimaleewul deram jëf yu jagade jikko yu jagadi jaratul muy solu solu na ba pare lu mu sol rek jag na ah idal maru lam yudnit min al lumi yardahu fa kullu ridain yartadihi jamilu jëfee ku waaw wa idal fata bu dikkalul waay nga fi ne lam yaxsa xaaraan gàcce lam tëkkoon du nekk asmaalu ay sagaram illa maraqi absi ndara de ay yéeguwaayam ci ralu nguuram rek maa ngi du lor alhaba jaasi kaw nu xiraat yi nekk ak mbatam xalaxan de ajrat jaasi bu ñëwee mbat jam de du ko walal baasi lorul xoox te muy li tin xaqaalatu xosi yi xeebul tàggam xam nga dana gis yoo xam ne dañuy raab ba mu rafet yow ci biir yu ñu nooyee di tëdd hmm. moom la ci bant yi lay dajale ba mën a dugg hmm. waaye de bu ci dajale ma lay fàtt hmm. summa maa hattama bi mu waxee ni rek ñu daje tewet mi summa maa hattama topp saxul ani taw xama lu muy mu taxawloo almallaha kondirkatu gaal bi wasaxee def mu yéeg mi ne sabinati ci gaal gi wasaaha mu wàcc dem bi mu wéyee ba fii rek waxtu yi koy dëggal dina ma kii wàcc na dem wala li ma réccu kulun képp mi naa ci ñun alama ci li nga xam ne farata sàggan na ko fii saati yi ci jëmmi kooku ko nit ñun réccu sax waax daa mu dumoye jam na wo mbatam bëtam ala xadaati yi ci laasam ku nit ñun sëgg sax watanat naa ñu kóolante ala la tax takkare ci bu den ñu xeebati sax san jëmm li rafetati burdi yi ngir rafet mu góob wala na ak bu dee ñuy xeeb ak sayfa jaasi sayfan jaasi mag bu anjëri suñu denc yoxim di ci mbaaram wala ni ko gisee te dama xamuñu ko dañ tey di moom léegi nag ñu ngi nekkoon ci